asalaamaaleykum internet Leewtoo TV leen mercredi 24 juin 2020 ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci yéen kaay tàmbale ko si fi nga xam ne ni mooy sunu lamb sunu lamb tey andi ñu ki nga xam ne ni mooy Balla Gaye 2 ginnaaw bi nga xam ne Aziz Ndiaye na bàyyi na lamb bàyyi na gunge mbër lamb rakkam ki nga xam ne ni mooy bàyyi Ndiaye naka noonu moom nag euh, sunu lamb laajte na ndax euh, Balla Gaye tey amul lu muy ragal ci li nga xam ne ni moo des ci carrière am parce que Baye Ndiaye ki moo xam ne moo tàmm di ànd ak moom ci wàllu mystique xam ne ni mooy defetu Balla Gaye 2 ba tey ñu des ci sunu lamb ñëw ci super classe bi nga xam ne ni Gaston annoncé na ko te mu yëngal li nga xam ne ni mooy lamb ji ba tey ci super classe bi Tapha Tine na si li nga xam ne ni mooy position am ci ni bañ ne du bëre ki nga xam ne ni mooy Reug Reug Tapha Tine nag li mooy bëre ki nga xam ne ni mooy Gris Bordeaux Lac de ak euh, yeneen mbër yi nga xam ne ni ñi ngi ci cercle des VIP ki nga xam ne tamit euh, mooy Pape Diagne Seras di manager euh, lamb Pape Diagne ñëw na dak li nga xam ne ni mooy choix bu nga xam ne mooy Tapha Tine nee na su bëggee préserver li nga xam ne mooy plan de carrière am dafa war a du jël ki nga xam ne mooy rëg-rëg ba tey ñu des ci sunu lamb mu ànd ak ñun ci euh, Lajang Lajang di porte parole écurie Taïchinga ba tey ci wàllum super classe Gaston bi Lajang di xamal ni euh, Eumeu Sène am na accord ak ki nga xam ne mooy Gaston pour ba dajeek euh, bombardier benn combat revanche waaye ba tey Lajang di xamal ni que Eumeu Sène pare na pour beneen mbër bu mu munti doon comme ni Lac de Guiers muy keneen mi ngi entraîné ne li ko ñor mooy effacer défaite bi nga xam ne ni am na ko ci kanamu Modou ci perte ki nga xam ne mooy couronne roi des arènes bi ñu dem seeti Garga Mbossé ba tey ñu daal koy annoncé tam super ko ni dañ ko bëgg a jox ki nga xam ne ni mooy Malick Niang nee na nag moom du def lu dul déglu ki nga xam ne mooy Père Gaston tey rafetlu li nga xam ne ni mooy démarche bi waaye bés bu ko woowee téléphone dina ko wax li mu ci xam ak li mu xalaat ci li nga xam ne ni mooy choix adversaire am ndax bañu dugg ci li nga xam ne mooy classe bi mais bu ci dugg tam bëgg nañu boole ko ay adversaires yoo xam ne ni moom la war a mën a am. pour yeggale li nga xam ne mooy plan de carrière am ñu dem seeti ki nga xam ne mooy euh, Amaneex Amaneex nekk ca écurie Lebu gi Amaneex nag ñëw na tey di tancé ki nga xam ne ni mooy Sa Thiès ak Garga Mbossé daal di leen traité de ragal ne looloo tax ñu fexe ba nangu jël ko avance am ñu dem euh, Leewtoo point net fekk fa Ndékumba Fall Ndékumba Fall nag euh, demal ñu toppaloon ñu li nga xam ne mooy réunion bi nga waroon am ci ay acteurs lutte simple yi pour joxe li nga xam ne mooy seen proposition ci CNG li mu war a remettre ministre des ministre des sports ñoom nag li ñu bëgg mooy 1000 francs yi ñu doon fayloo mbëri pour ñu bëri ñu daal di koy arrêté ba pare yokk mbëri yi nga xam ne 64 la woon ñu def ko plus de 64 promoteur yi nga xam ne tamit amoon nañ licence ren waroon tëgg te tëgg ñu ndax euh, suspension activité yi déwén bi ñu bañ leen fayloo licence ba ñu tëgg seeni combat ba pare lu si tamit mooy démarrage saison bi ñu teel koo commencé comme ça ku nekk mën na profité ci calendrier bu gën a yaatu bi waaye ba tey des na am ay juboo parce que yenn promoteurs yi d'accord ñu ci yenn point yi ba tax na acteurs yi dañoo war a dajawaat li nga xam ne ni mooy dimanche prochain pour defaat beneen réunion pour mën a trouver benn consensus ñu dem ba tey fële ci record fekk fa Abdou Ndour Abdou Ndour tam topp li nga xam ne mooy réunion bi ñëw ak euh, proposition yi nga xam ne ni tamit def nañ ko fa ñëw tamit ci yenn promoteurs yi nga xam ne ñëwoon nañ fa ñu si mel ni ñoom ab Ablaye Diop ñoom euh, Sañ production ñoom Maam Koor ak ñi si noonu ñëpp ñëwoon ci réunion bi mooy réunion ba tey pour li nga xam ne ni mooy doxal lamb bi ak day taxaw day continuer nu mu war a demee loolu moo taxoon euh, acteurs yi daje foofu nga xam ne mooy arène Adrien Senghor waxtaan bu yaatu ak ki nga xam ne ni mooy ba fa gëy di coach régional de Fatick moom nag Bafa ñëw na ci li nga xam ne ni mooy presque actualité lamb bi ñëw na ci coow arbitre yi daal di wax ni am nañ droit réclamer de meilleures conditions waaye lenn rek lay ñaawlu mooy manière bi nga xam ne ni moom lañ ko defee ba tey ak ba fagee mu ñëw ak ñun ci rëg-rëg daal ñuy xamal ne nag rëg-rëg bokk na ci ñi nga xam ne ni ñoo dàq bëre ci làmb ji donte nag du moom dong parce que bañ ko laajee Balla Gaye tamit nee na du wax ni Balla Gaye dong moo dàq bëre mais bokk na ci ñi dàq bëre Bafa Gueye itam ñëw ak ñun ci li nga xam ne ni mooy euh, cinq majeurs yi mu jàpp ni ñoo teg tànk ci li nga xam ne ni mooy mu ñoo mën a former li nga xam ne ni mooy équipe nationale mu mel ni kii 66 kilos mu mel ni Moussa Faye la fa taamu 76 kilos Ngor Ñaax 86 kilos Dibakor Sagne 100 kilos ordinateur 120 kilos ki nga xam ne ni mooy gone Malika bi général Malika loolu lañu leen toppaloon tey ci li nga xam ne moo fas yéene kaay si wàllu lamb salaamaaleykum mbokki suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu baax di leen ziar di leen jaajëfal comme ni ñu koy defee chaque jour ànd ak yéen ci seen revue de l'arène ñëw nag si euh, li nga xam ne mooy jàngat bi ànd seeg Ndeye Coumba Fall comme Babacar jël euh, repos dem fële ca ak yaay Ndeye Coumba nuyu naa la. madame Niang maa ngi lay fay. nekk mba ñu ñëw tey ci waxtaan bi daal di fekk sunu làmb andi ñu tey euh, Balla Gaye nag Balla Gaye euh, Aziz Ndiaye annoncé arrêté ma ci lamb arrêté ki nga xam ne tamit mooy euh, frère am Baye Ndiaye ñu ko doon gis si wëtu Balla Gaye sunu lamb di laajte ndax tey est-ce que Balla Gaye amul lu muy ragal pour li koy xaar parce que am na ñaar ñoo xam ne doon nañ posé si moom te arrêté nañ waa ah, ah, ah, comme li waa suñu lan wax rek est-ce que tey jii Balla Gaye par rapport ak carrière du am lu ko xaw a manqué man yaakaaruma ko même parce que benn noo bokk seen géejawaay ñaar Aziz waa famille Aziz Ndiaye muy Baye Ndiaye muy Aziz Ndiaye ñoom yàgg nañu ak Balla Gaye même su fekkee ni feeñul maanaam fësul derrière c'est sûr que dina am ay conseil wala am na lu bëri loo xam ne mu koy apporter wàllum euh, mystique euh, financièrement ak ay conseils loolu yëpp euh, Baye Ndiaye Aziz ko bàyyi ginnaaw ndax xam nañu bi muy préparé combat am ak ki nga xam ne mooy Modou kër Aziz la ko defee kon ñu bëre xam nañu Aziz Ndiaye ak Aziz ak ki nga xam ni mooy Balla Gaye xëy na du ñu bàyyante daañu daañu bàyyante nii si kanamu nit ñi mais derrière Aziz Fala bokk famille Aziz ils seront toujours derrière ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye kooku ñu jóge foofu dem euh, fekk li nga xam ne ni mooy super classe bi nga xam ne Gaston andi na ko super classe bi nag euh, woy ba tey di indi ay euh, ay ay wax parce que ki nga xam ne Tapha moom nee na. parewul pour bëri ki nga xam ne mooy Reug Reug te li mu bëgg mooy ñoom Gris Bordeaux ak ñoom la de Guiers adversaire yu mel noonu. xam nga euh, euh, madame Niang kaawu Tapha Tine day xaw a tuuti critique ndax Tapha ñi mu bëgg bëreel ñooñu bëgg na bëree ak ak ak ki nga xam ne mooy Tapha donc moom ñi nga xam ne bëgg nañu bëree ak moom Tapha Tine bëggul la waxoon rek moom TNT bi xam ni euh, ki nga xam ne Ama Baldé daka daf ko daan dafa freiné lu bëri daka yàqal lu bëri si wàll mun a si si ki nga xam ne moom mooy VIP parce que Ama Baldé amaana sax nekkoon na VIP mais moom euh, xale la woon bu doon yéeg ñëw daan ki nga xam ne mooy Tapha Tine bi nga xam ne bëri naag ay VIP ku si mel ni comme ñoom ay Balla Gaye ñoom ku si mel ni ak ak ñoom Bombardier tey si wëlbatikoo xale bu mel ni Ama Baldé daan ko donc daf koy rétrograder bi si suuf donc man daal conseil bu ma koy jox conseil la maanaam mu jéem a wàcc bëreek ak xale yi daan leen jéem a yéegaat comme ni Bombardier defoon ak cek bu mu amee problème adversaire dafa wàcc bëre ak cek yéegaat mu mën a bëre ak morom mais instant bi nii comme ni mu bëgg wax comme ni mu wax rek bëgg a bëre ak ñoom ay euh, Bombardier ak Gris Bordeaux na xaw a jafe trop parce que ñoom xool na ko ñoom a ñeneen la ñuy xool waaw nekkuma ba tey si super classe bi euh, keroog euh, waxoon nga ko ci Leewtoo que Gaston Mbengue doxoon na li nga xam ne ni mooy euh, bombardier ak Eumeu te tey Ladiang jël ñëw ci sunu lamb confirmer loolu ne xaar li ñu doon xaar mooy li nga xam ne mooy avance jóge si Gaston ñëw mais boobu léegi ñu ngi xaar mais nee na tam pare Eumeu Sène nekk lu fi benn mbër rek day entraîné di xaar parce que amoon na bor boo xam ne war na ko fay waa Pikine. Euh, Aïcha comme lu mu la wax rek euh, Gaston mel euh, gone bu ñaambur ñaambur la dafa muus parce que dem gis nañu si sunu lamb muy wax ni plan B moom mooy ki nga xam ne mooy rëg-rëg ak bombardier mais loolu c'est juste rek xëy na pour jéem a bluffé nit ñi mais Gaston Mbengue comme lu ma waxoon si Leewtoo point net nee na. Euh, euh, taxawal na combat bi négocié na digganteem Bombardier ak Eumeu depuis ce euh, début de saison bi mais problème mu feebaru Covid 19 bi moom moo tax joxe woon avance bi bu nu laajee Max Margan dëggal na ni combat boobu am na avance rek kay avance rek moo des Bombardier tamit dëggal na ko donc gëw ma ni dina am plan B. plan A ak plan B ak plan C Gaston mooy tëgg ki nga xam ne combat revanche diggante Bombardier ak ki nga xam ni moom mooy Eumeu Sène donc dañu xaar rek xëy na fii ay fan yu néew di ñu génne avance bu mun ko jox wala boo day xaar boog ba xam situation bi Covid bi fan lay mujjee ak situation làmb ji fan lay mujjee pour mun a joxe avance yi keneen koo xam ne tam a génn na ba tey euh, si biñ après yi nga xam ne tudd nañ ko si super classe bi mooy euh, ki nga xam ne mooy Garga Mbossé parce que euh, annoncé nañ fi combat mag Malick Niang moom nag nee na du si waxagum parce que day rafetlu li nga xam ne mooy initiative bu bi mais bés buñ ko contacté tam dina wax li nga xam ne ni moom la bëgg ak li nga xam ne ni adversaire bi nga xam ne moom lañ ko plébiscité te ñëpp xam ko ba pare Euh, temps yi moom comme li ñuy wax rek Gaston moom mooy moome va ndax moom comme que moom moo génn dafay ñëwaat pour tëgg làmb te mbër yi bëri xam nañu def nañu saison blanche te comme li ñuy wax rek làmb yi dafa am euh, problème euh, promoteur bi mën a tëgg ay VIP promoteur yu bëri ay kii la ñuy tëgg combat espoir peut-être su fekkee ni sax ki nga xam ne mooy paa de famille dafay effort tëgg des fois benn combat mais promoteur bi nga xam na nag bi xëy na VIP yi daañu mën a bëree espoir aussi daañu mën a bëree mel ni comme Garga Mbossé laa bëgg bëree balaa mbër boobu naa ko nag ma préparé nag ma moom moo tax mu ne su ko Gaston contacté dina wax kan la bëgg bëree problème nag xam nga mbër bu toog ay ati at bëree pour nga am adversaire day xaw a jafe parce que benn su la daanee nga yàqu soo ko daan tam du la apporter dara moom moo tax nag Malick Niang il faut aussi ñu xool situation wala boog su fekkee ne am na parrain mu jëm ko jox ay conseil mu xool ba xam pour mun a ñëwaat si làmb ji dëgg mo dañuy dem fële ca leewtoo point net ak euh, ba tey ca record parce que tamit ñëw ngeen ci li nga xam ne ni mooy euh, réunion bi acteur lutte euh, sans frappe yi doon def pour daal di joxe seen i proposition yi nga xam ne CNG laajte woon na ko pour ñu xool saison bi nu muy mujjee ni ñu koy doxalee ak yooyu ñoom nag ñëw nañ indi seen i proposition waaw comme ni wax rek promoteurs yi acteurs yi ak promoteurs yi yëg def lutte simple su fekkee ni waa Fra bi ñoom defagun dara waa lutte simple bi ñoom ni ngi daas fanaan la di xaar xëy na saison daañu ko ubbi wala boo nañ koy euh, préparer pour saison prochaine ñoom nañoo euh, réunir comme ni ko waxee rek Leewtoo point net ak si euh, xool daal dimanche def nañ fa benn réunion bu mag pour xool yenn recommandation lañ jox ki nga xam ni mooy CNG pour mun daal saison bi di ñëw mu gën a yem si ñoom ak ñëpp aussi mun si trouver leur compte jox nañ nañ tamit ay recommandation yoo xam ne euh, Ablaye Diop promoteur bu Soum production ñoom daal li ñu wax maanaam ñi nga xam ne am nañu licence ren te noo tëgg am euh, li nga xam ne mooy journée déwén nu mun a conserver seen licence yooyu mun ko tëgg pour daanu bañ jënd beneen licence ñëw nañu aussi si problème mu 1000 francs yi nga xam ne mbër yi moom la ñuy euh, inscrire mun a participer te galaat lu di ñoom daal ñenn ñi ñenn ñi suñu sañoon loolu mu dañ ni yokk aussi mbër yi xam nga mbër yi fekkee Adrien Senghor 64 mbër la parce que foofu dafa xaw a ndaw ñoom suñu sañoon daan nee na ñu leen ko euh, ak nee nañ tamit su fekkee ni déwén aussi fekkee ni lamb bi feebar bi euh, jóge na fi lamb bi au lieu muy ubbi novembre mu jëm ko indi tel ko ubbi octobre pour daal promoteur yi mun tëgg seen lamb am na yeneen tamit affaire euh, yeneen sujet yu ñu fa soulever pareegul nag dimanche prochain incha allah daañu ko continuer waat dañuy daal di jeexal ak euh, Bafa Gueye di coach régional bu Fatick moom nag am waxtaan euh, bu yaatu ak ki nga xam ne nii mooy euh, Abou Ndour moom nag ñëw na ci li nga xam ne jot na jàll ci lamb ji maanaam coowu arbitre bi nee na am nañu droit réclamer meilleure condition waaye doxalin bi tamit moom lay déplorer ni ñu ko doxalee moom tamit ñëw na si li nga xam ne mooy meilleur euh, lutteur yi nekk ci lamb ji du nekk benn nit moo fi dàq bëre mais wax na ñi nga xam ne ni moom ñoom la jàpp ni ñoo fi dàq bëre ndeykum Euh, ba Gueye muy coach régional bu région de Fatick comme li nga wax rek ñëw na si euh, actualité lamb ñëw na aussi si nga xam ne moom mooy euh, équipe bu Fatick bi parce que équipe bu Fatick bi ñaari dernière édition yëpp dañoo perdre seen ay titres ñëw na si donc si li ma ko gisee si record bi je pense que su fekkee ni saison bi su ubbee drapeau chef de bi suñ ko organisé dina gën dina defaat ay changements si équipe bi parce que am na ay tour yoo xam ne annoncé na ko loo xam ni pour daal yaakaar nañu ñooñu suñ ñëwee ci équipe bi les cinq majeurs daañu mën a gañewaat euh, titre euh, euh, titre du titre championnat du Sénégal ñëw na aussi si Reug Reug moom gis-gisam mooy Reug Reug c'est le mais tamit bu ñu fàtt ne aussi euh, am na ñeneen ñoo xam ñi ngi ñëw euh, ñëwaat na aussi si euh, si problème bi arbitre yi moom nee na arbitre bi ñu si bëri nañuy liggéey moom su sañoon daal ñu jéem waxtaan ak waa CNG comme ñoom ñuy exposé seen problème si si bi mais bon ku nekk tamit yaay xam tamit noo koy sa sa combat noo koy mëne ñoom yaakaar nañu xëy na suñu ñëwee au devant xëy na wax nañu au niveau du CNG ñoom dégguñu leen ñu ñëw nag sur la place publique xëy na pour boog nit ñi mun leen jàppale trouver solution opinion par rapport à ça. maaleykum lii la ñu andiloon ñi nga xam ne mooy mbokk internet yi suivre euh, Leewtoo TV di leen euh, ñaanal jàmm di nuyu ñëpp di bëggee ñëpp di nuyu Cheikh Bass euh, Kër Massar di nuyu Abdoulaye Mbaye di nuyu fans Babacar yëpp nga xam ne fan yëpp ñu ngi laajte ki nga xam ne mooy Babacar den wax Babacar mi ngi ñëwaat peut-être semaine prochaine incha allah dafa jël quelques jours de repos pour mun a. noppalu daal di ñëwaat en forme gën leen a bégal ñu daal di leen di tàggu si loolu daal di euh, bége ñëpp daal ndeykumba. wala Babacar Deme. d'accord mi ngi ak yaay daa seeti njaboot gi. seeti soxna si teneng Babacar ni koy nuyu ak uh, waa ak yaay yëpp Aïcha Faye aussi may nuyu sama yaay nuyu sama doom Mohamed Diouf nuyu astandine déjà Brahma Chéri Khadija Diallo di nuyu samay butchu uh, ki nga xam ne mooy Grand Fallou Penda Rokhaya ak ki nga xam ne mooy uh, taaw Khadija Diallo Mam jaara di nuyu ki nga xam ne moom mooy Abdou Gueye Baye Fallou Diamagal Papa yi Cité di nuyu ki nga xam ne mooy Asek Chéri Khoudia Seck depuis Italie ñooñu tamit maa di nuyu